waa waaw ñu ngi leen nuyu waa daara ji ñu ngi leen di nuyu ah, asalaamualeykum wa rahmatullah waa waaw ñu ngi leen di nuyu waa daara ji yëpp <clears throat> di nuyu ñëpp ñu ñi déglu euh, di sàkku ci yéen itam ñaan ku nekk bu ñu mënee defal juróom-ñaari fàtte ak euh, ak ci yonent bi salaam alayhi wa tam bu mu mën euh, léegi mu defal ñu ko inshallah allah pour yalla sàmm ñu yàlla aar ñu itam lu ñuy oti ci all bi yeb du dara lu euh, euh, euh li ibbi nit ñi ak li fajj doomu adamay rek wa ñu ñëk ci joxe li wa mo alif lam mim bi nek nek nek mo ci alcorane yeb mais dañ koy bind premier jour gaay may leen ñu wow. ah asalaamaaleykum wa rahmatullah gaa may leen tuuti waaw léegi léegi dañuy am euh, euh, ñeent yu ñu maye rek comme temps bi léegi guddi na waaw ñu maye bi nga xamante ni képp ku bëgg a bayre nit ñi ni léegi boo koy bind daal di ko sangoo foo dem daal dañ lay jox cër dañ lay respecté te te te itam dañu lay bëgg lu ñu am dañ lay jox lu ñu xam itam dañ lay wax mooy lii boo ko bindee premier euh, premier jour ci weeru euh, ci weeru jullit euh, le premier jour bi moom nga koy bind nga sango sangoo ko benn yoon foo dem rek dañ lay respecté te tey itam dañ lay bëgg encore di la jox rek waaw waaw dooy ñàkk quoi waaw waaw dañ lay bëgg daal waaw waaw bii itam mooy jalo jaloo bii itam jàngale woon naa ah, ah, ah, ak buy ak neb-neb bu dee neb-neb bi ay may leen ñu tuuti waay neb-neb bi mooy bëñ buy metti bëñ dañ ciy tibb benn benn kudd bu ndaw def ci tuuti xorom def ko ci kaas ndax daal di koy yëngal amul tàngal ndox sax da da nga koy lokk rek da nga koy lokk boo ko logee côté côté bi muy euh, bi muy méttee une minute nga yàbbi ko répété ko ba trois fois ba lu métti métti incha allah trois minutes incha allah mu wér mais bu demee ba bëñ bi bëñ bi am euh, infection euh, léegi mu neewi nii léegi da nga koy def un litre léegi chaque trente minutes chaque trente minutes léegi nga répété waat ko. chaque chaque trente minutes balaa ngoon da ngay gis euh, neewi neewi bi yëpp rees buy moom dafa euh, moo gaaw ci euh, ci angine da koy faj léegi léegi waaw mu mës naa ko jàngale itam baax na tamit kuy sëqat encore ni ni kuy sëqat baax na ci lool baax na encore les xoox bi encore baax na ci góom les xooxu waaw mooy xooxu buy bi dang koy lak après ba xam nga koy nga ngay fomp gom bi ba set diko ci tay jalo bi itam wa wa diko ci tay wa wa jalo ben garab la bi nek fe casance mais euh naa ko jangale pourtant fi moy jalo moy ah, xay xay wa ah, wa moy xay wa wa mom mom la jangale fele mais bi encore ma indi len ci benen façon xam nga garab waaw waaw gis nga bii nit ñu bëri dañoo jàpp ni mhm. euh, pour dindi liggéey rek la mais dafa ibbi dafay faj ndax day faj xam ama mauvaise haleine ñaari façon la am na bu nekk ci bëñ yi nii mais am na bu nekk à l'interne ah, waa ci mbàq boobu itam mu mën na ko faj mais mais attention moo tax dem jëndi garab nii rek wóorul am na benn ah, am na ah, am na benn kilifa gu mag dafa musoon a wax wax pour taalibeem dem utal ko xay kooku oti oti benn benn garab bu mel noonu oh, buñ ko tegee nii doo ko xàmmee koo ko ko koo dem jënd ko dem uti ko bañ ko baxalee mu mel mel noonu noonu tam xonk bam mu ko naanee dafay dagg mbàq li moo tax def leen attention ci wàllu garab lu ñu euh, du da ngay dem rek dem ne ne ko ne ne ko am njaay ma da ngeen ni am na ñu bëri tey boo leen dugaloon ci àll bi am na garab yu bëri tey dañ koy dégg nii rek lay di ko wax mais xamuñ

waaw wa da nga koy da nga koy baxal rek benn benn tige benn benn écorce bu toll nii rek baax na comme écorce bu tol toll nii rek baax na waaw waaw waaw écorce bu toll nii rek baax na léegi bu ko defee après nga baxal ko léegi di ko naan def ci xorom waa benn cu cuillère à café rek doy na mbokk yi ko xoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kaki baik